xel dana ko mën a ndax mooy téere bi nga xam ne moom la sayxul xadim wax ne maasikan bil kitaabi maska dariri bi yeddil qaidil basiril mooy maa ngi jàpp alquran mel ni silmaxa bu ñu womat mu muy jàppe ci yet bi koy womat noonu laa jàppee ci alquran mooy daalikal kitaabu la rayba fiihi hudan lil muttaqina looloo waral njabootu sëriñ tubaa gépp la jiitu ci ñoom mooy alquran kon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 ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يات بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم linnaasi alaykum xujjatun illa alladina zalamu minhum fala taxshawhum waxshawni waliutimma nicmati alaykum wa laallakum tahtaduun كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون waaw loolu mooy li ñu ubbee jataay bi xel man ko nangu aaya yooyu mu jàng bokk na ci li muy tekki yàlla moo wax yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko foo mën di jëm booy julli nanga nga jëmee sa jëmmu ci masjidul haram muy alkaabatul musharrafa jàpp naa ne loolu lu ama am solo la ndax kenn ku nekk xam na ne aaya bi dana firndeel julli maam Thierno euh, dafa fonkoon julli kon ñu wéy rek déglu euh, kàddu yi sallallahu yi fi teew ci ndigalu sëriñ abbas ibnu cheikh ibrahima ak ci kàddu Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khoudous mi nga xam ne moo yor comité d'organisation màggal gi ñu ngi dalal ñépp ci jàmm di leen ziyaar ziyaar yu gën a tedd ci bis bu mag bi nga xam ne dañ koo daje di ci fàttaliku bis bu mag boobu nga xam ne maam Thierno Ibrahim ci la daje woon ak magam ju baax ji mu jóge ci tikkam bu rëy boobu bi nga xam ne ci la indee li mu ñu indil lépp kon bis boobu bisu murit ñëpp la bisu lislaam gépp la di tàmbalee ziar yu tedd yooyu nag ci Serigne Sidi Al Mokhtar mi nga xam ne mooy xalif général de Mouride bi nga xam ne ñëpp xam nañ taxawaayam ci dëkk bi di daarul moxti nga xam ne yamulewu kook dara ba tax na màggal gii dana fi def ay fan yu bari ànd koog ñun di ko def te wax na ma ci làmmiñu boppam ne bi mu koy def ak léegi ëpp na juróom benn fukki at kon kooku du benn bis li ñu xam ne moom la sëriñ bi sàkku nag tey mooy ñu gàttalu euh, jataay bi te mu am njariñ ndax dañ koy def ci direct yéen ñëpp seetlu ngeen ko te waxtu wi dafa gàtt te dab nañu ba noppi kon nag li ñuy sàkku mooy képp koo xam ne jox nañ la ci kàddu nga gàttal wax yi fi ñu la ci yam loo it ngay am foofu ndax loolu mooy defar liggéey bi loolu it waxtaan nañ ko ñi ñu liggéey bi yépp kon nag programme bi nii lay tëddee bu ma daaneelee dinaa jox Ablaye mbay Peex mi nga xam ne mooy yor microcentral bi mu dalal gan ñi war waxtaan kii ubbi waxtaan wi mooy El Hadj Amadou Samb mu dalal gan ñi bu noppee jox Mbay sàmb baay sàmb mu euh, liir délégation yi nga xam ne ñoo fi ñëw ak ñi fi yónnee bu daanelee ñu jox kàddu gi ki nga xam ne mooy waxal sëriñ si Moxtaar euh, mu jotale yóbbante sëriñ bi bu noppee ñu jox sëriñ Xaarim Abbas dana wax tuuti ci dunduk sëriñ sëriñ sëriñ sëriñ euh, maam Thierno Ibrahim ndax comme moo ñu dajale bëgg na ñu xam lu tax lan lañ mën a fàttalikoo ci wàllu taxawaayam ci yoon wi ak ci réew mi bu daaneelee ñu jox ki nga xam ne moo fi teewal chef de l'État mu wax moom it bu noppee sëriñ Bass Abdou Khoudoss mi nga xam ne loxo liggéey bi yëpp ci loxoom lañ ko teg te moo kàddu sëriñ bi dana leen tontu yi gan yi bu ko defee sëriñ bi ñaanal ñëpp ñu yeewi gan yi noonu daal lañ ko bëggoon tëddale di ñaan ñëpp nag ñi nga xam ne ñoo seq ak ñeen liggéey bi ñun liggéey ñu dimbale ñu ba ñu amee ko ni ñu ko bëggee ndax loolooy defar liggéey bi te loolooy ndigalu sëriñ bi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Ablaye ñëwal. waaw jërëjëf euh, xam naa kon programme bi noonu lay tëddee kon ñu déglu Ablaye mbay Pekh ci kàddu yi nga xam ne mi ngi koy yëkkati. jëkkanteeg waxtu wi man ak Baye Samb. Alaaji du Samb sunu mag lan fi teewal xanaa sëriñ bi leeral la rek Cheikh Sidil Maxtaar xalif général kullu murid nga xam ni bis bii da koo bokk ak yow muy màggalu maam Cerno Birahim màggal yépp dana joxe ndigal waaye màggalu maam Cerno nag bu joxe ndigal ba noppi dafay ñëw bokk kook yow loolu moo tax xalif général yendu daaru fanaan fi mooy sëriñ Touba yaay Cerno Birahim mooy sëb sëriñ mooy sëriñ ñi ñëpp waaye yaay waajuram moo tax mu di déglu yaa ngi sëñ Moustapha Mbakke moom sëñ Massamba da leen di xoole Cheikh sëñ Cheikh Awa mooy sëriñum ñëpp waaye yaay waajuram loolu moo tax sëriñ bi di màggal seeg yow doomam ju baax jaa ngi nii toog sëriñ Moustapha Mbakke àndante ak sëñ mooru Baara mu ngi nii àndante ak sëñ Cheikh Baara Laat àndante ak sëriñ Maar ak njaboot gi yëpp sëñ bi toog di leen déglu waaye mu ni demal sëñ Moustapha ca wetu sa maam nga teewal ma fa sama jataay mooy jataayu sëriñ Touba waaye jataayu Baye Abbas mooy jataayu Thierno Birahim Birahim i sama ca bayti cernu borom nit ñi yaay cernu Birahim bi sëñ bi dem ci géej gi lu mu yor sa bañ mu yàqu cernu la ko dénk yaay cernu cernu yi la cernu de cernu jëkk a dem ndar di léegi ku mu neex dem ndar waaye bi cernu yi dem ndar cernu rekk ñu may dem ndar mu ngi nii toog waaye sëñ Fallou ngi toog kii toog mooy sëñ Maam Mor Saam Mbakke mu Cheikh Mat Fadal Mbakke mooy rekk Cheikh Sidil Makhtar mi ngi nii toog sëriñ Fallu moo joxe woon ndigal ci bis bii mi ngi nii toog sëriñ Abdourahmane Ñang mi ngi nii toog waaye sëriñ bi sëriñ Masamba ak Cerno Birahim ak xaalimal Moustapha xaalim moo doon sëli sëriñ Cheikh Mbakke mu ngi nii toog ku dendal sëriñ Moustapha Mbakke moom sëriñ Abdoulaye Karam Cheikh Anta ak Afe Anta ak Fati Anta ak Mbakke Anta ñoo toppante sëñ bi Cheikh Modou Mahfous mu ngi nii toog ak njabootu Cerno Birahim yëpp xoolal sa taaw bii Cheikh Abdou Mbacké ak njabootu Baye Cheikh Khady ñoom ñëpp ñu ngi ci ginnaaw Baye Cheikh Khady demul fenn yaay Baye Cheikh mi ngi nii toog Cheikh Abdou danaa ci ñëw ah kilifaam a ngi nii yoon wi kay xam naa ak kan sëriñ Cheikh Abdourahmane Gaynde Fatma war ngaa ñëw teewal sëriñ Abdoul Fatah teewal sëriñ Amadou Makhtar Cheikh Moustapha tax sëriñ Touba roof tànkam si dégg lu gëlëm la bi loxo mu teg ko sëñ Mourou saa sa maam bii mu teg ko sëñ Fallu dénk naa leen yàllaay yonent bi ak seen bàyyi Cerno Cerno bu ñu jagam bu ñu buun bu ñu saale bu ñu boj bu ñu jagam nañu dee wat bu ñu saalañ bu ñu jagam nañu set bu ñu buun nañu lekk ndawal Cerno def lépp looloo tax mu ñëw ak njabootu Cheikh Moustapha yépp yoon wi ñépp a ngi sëriñ Cheikh Astou Faye gor si sa taaw bi bu toogee toogal na sëñ Moustapha sa ak njabootu borom daaru yépp rakkam yépp nekk ci ginnaaw ñu ànd ak Cheikh Mamadou Bassir sa doom gii boobu ma nee sëñ Cheikh Assou Faye nag daaru dugg na yéen la ñu fekk si tey moo tax lim bi na ko yemal sëñ a Assou fay sëriñ bi président de la république ah li ma am nag lépp ñëw na ku jiite délégation bi Aly Ngouille Ndiaye Aly Ngouille di taalibe sëriñ Touba yaakaar Xaadimu Rasuul am kër Touba moom la yebal ak kan fonk na bis bi kii toog di ministre Pes Guèye Mamar Guèye di nit ku yàlla baaxal ànd na ma ak Cheikh Modou Bachir dem Bambilor waaye waa kër sëñ Bamba yi ca Bambilor kii moo leen di taxaw lu xew mu jox leen oto yi neen dem leen Touba ànd ak kan Abdou Ndeene Sall Abdou sàll Sall get ma bu naa bunaama maamam dox na fekk sañ Touba xumaag ak gouverneur sénéral ak gouverneur mi ngi nii toog Aliou Bane Mbengue préfet bu Kébémer tubalkal mu ngoog boog daanu ci dugg ak ancien gouverneur lii moom lañu bëgg a tàmbalee waxtaan wi su ko defee ñu daal jublu ci biir sëriñ bi leeral la sa doom sëb sët dafay am lool bu ko jàmbur defee ñu gërëm ko bu ko sëtu borom daaru defee waras na ko wax mu Ibrahima Sall lii nu nekk lépp Ibrahima boppam la ko defal nag dëru bu doonu nag ko war ay fay ko ku xool gendarmerie bii xool yi mu fi def xam ni Ibrahima amul lu mu yéen ku toog Mamadou Diagne Fada doomi daaru musti fayul na maam Cerno bor li Cerno daj ci àll bi ba ministre environnement fanaanee daaru musti loolu Cerno Mamadou Diagne Fada daaru lay waaje moom lay wàllee mu ngi nii toog kon nag bisimilah Baye Samb ñu jox la kàddu gi ak taxawaayu ma faal faal ma faal faal ñëpp a koy gërëm ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax taxawaayam rafet na directeur Sénélec Makhtar Cissé yónni na fi jaa ak caam ñoom itam ñëw nañu bàyyi bisimilah acca continuer أعوذ بكلمات الله تامة من سر ما خلق wala xawla wala xawata illa billahi ali alazim bisimilahi barkeb Baye Abbas moom maam Thierno Ibrahim moom Cheikhul Khadim sëriñ Ablaye jërëjëf fi nga daanele rek fi lay tàmbalee wala nga ubbee fi sa waxtaan ñi ngi koy jël ci sa kàddu ak sa ndigal di ko jël ci kàddu alaaji Amadou Samb waaye di ko jël nag ci kàddu ki nga xamante ni dañu ñaan sam borom dolli ko wér muy alaaj jaaja mbay bu keemeer ndax CLD ba ak CDD ba ak CRD ba ci taxawaayu sëriñ Basiiru moom sëriñ Abdou dos mi nga xamante ni moom la sëriñ Abbas joxoon lépp ni ko benn baat la jenn wax la kenn moo koy wax ca yow sëriñ Basiiru yaa koy wax ndax ci sa kanam waajur wan nga nu ni nga xamante ni loolu moonu taalibe diggante mi ak sëriñam ba fi Seex Abdu Xudoos bàyyi ko wan nga nu diggante ab taalibe ak doon ambassadeur ci kër yu mag yépp këri rakkam fa tubaarakalaawu nga doxale ko doxale wu rafet kon bu ñëwee jëlaat kàddu gi jox la lépp dañuy ñaan sa borom guddal saw fanta doon lag wér jërëjëf Alaaji Jaaje du ma delluwaat ci délégation bi nga xamante ni moom nga wax léegi waaye danaa indi ci bis bi tuuti rek ca loolu Moussa Ka moo ko njëkk a wax dafa wax ni bis ba Sëriñ Tubaa demee géej jërëjëf wax na dëgg ndax diggante fii ak tisbaar waxtoo genn wàll la ca matatu ko sax kon njobootu yoonu murid yépp ñëw nañ la tàmbalee ci mu Moustapha kër sëriñ Fàllu sëriñ Mamoor mi ngi nii toog sëriñ Abdou Xaar mi ngi nii toog waaye rakki sëriñ Touba yi nga xamante ne ñoo àndoon ak borom daaru topp ci sëriñ Touba ñoom ñépp fa tubaarakalaaw ñëw nañu bu ñu ci limee sëriñ Abdou Lakram mi nga xamante ni moo fi teewal waa Gaawan gépp waaye moo fi teewal waa afe gépp fa tubaarakalaaw dana doy sëkk bu ñu limee sëriñ Moustapha Bousso nga xamante ni moo fi teewal waa Bousso bi gépp dana doy sëkk délégation bi nga xamante ni moo jóge woon ci sëriñ Cheikh Jëmb Fall fa tubaarakalaaw ñoom it leen fàtte kon sëriñ Abbas sa njaboot gépp ngi nii kër sëriñ Modou Awa Balla ñoom ñépp ñu ngi fi teew sëriñ Mouhamadan ma nga ne toog kër sëriñ Cheikh Awa Balla sëriñ Modou Mahfous àndanteeg sëriñ Sidi ñe sëriñ Sidi mu sëriñ Maam Thierno ak sëriñ Sidi mu sëriñ Amadou Mokhtar ñoom ñépp ña nga nee toog kër sëriñ Abdou Khoudous moo yore baatub kër gi ma nga nee muy sëriñ Basirou waaye nag gi nga xamante ni mooy kilifa sëriñ Mouhamadan njabootuk sëriñ Mouhamadan ak sëriñ Modou Habib ak sëriñ Abdou Khoudos sëriñ Abbas jëlaat baatu dëkk bi jox ko muy sëriñ Cheikh Ousou nga nee toog ma nga nee toog njabootu kër sëriñ Cheikh Khady nga xamante ni kenn ku ne xam na diggante kër sëriñ Cheikh ak sëriñ sëriñ Abbas sëriñ Abdou ànd ak sëriñ Maam Thierno ànd ak sëriñ maam Thierno ak sëriñ Ousmane ak seen rakk yépp ña nga ne toog njobootug sëriñ Fàllu wax naa ko léegi sëriñ Abo Baraka moom it def na une forte defoon na une forte délégation sëriñ Maam Mor ma nga ne toog sëriñ Cheikh Marema moom it ñëw na fa tubaarakalaaw sëriñ Abdou Fatah ñëwoon na sëriñ Cheikh mbake moom sëriñ Mouhamadan Diobé ñoomit it fa tubaarakalaaw ñëw na teewal fii njabootu sëriñ Masamba gépp sëriñ Bamba Sugu sëriñ sëriñ Maam moom sëriñ Fàllu wax naa ko léegi sëriñ Abdou Xaar ak sëriñ Abdou Ñang ak njabootu xalif général gépp sëriñ Ablaye Mbay Peex wax na ko léegi waaye li tax nga xamante ni fa tubaarakalaaw jataay boobu mënut a ñàkk borom daaru dafa masaan fanaan njaareem kër sëñ Balla Coro sëriñ tubaa woolu ko ni ko Ceerno damaa bëgg nga ñëw fanaan si ci biir kër gi ndax dama damaa rusa fanaan ci biir nga fanaan ci biti loolu la sëñ Sidi Muxtaar di dundal ba léegi moo tax màggalug daaru gépp bu daaru bu jotee noonee ko sëriñ Tuubaa bëggee woon sëriñ Sidi sëñ Sidi Muxtaar noonu la koy defee ñëw fanaan seeg njabootu borom daaru gépp kon ñëw ngi koy ñaan sama borom yàggal ko fi dooli ko wér Serigne Moustapha Serigne Modou Baara njobootuk Serigne Amsatu Serigne Xaadim ma nga ne ak sëriñ Seexuna naa it fa tubaarakalaaw ñoom ñépp ñëw nañu njobootuk sëriñ Abdou Jamil Serigne Koso ma nga ne waaye njobootuk Serigne Dame Fati ak njobootuk ay Aydara ak mboolem fa tubaarakalaaw njobootuk borom daaru gi sëriñ bi ñoom ñépp ñëw nañ sëñ bi nag loolu lenn doon na dong nga la ko may na nga xamante ni borom daaru mu ngi ko doon toppi Serigne Touba noonu nga ko toppe woon sa mag ni nga xamante ni noonu la Serigne Fall doon toppe Cheikh Cheikh Modou Cheikh Modou Moustapha ndax keroog bi nga xamante ni gisatuñu Serigne Touba gouverneur général général bi nekkoon Ndar dafa woo Serigne Modou Moustapha woo Maam Thierno woo Serigne Fallou bi mu ñikkee présenté ko lépp mu ne ko kii de xaw ma ko mu ne ko kan mooy Fallou mu ne ko waaw yoon mi dama ci am mag am ci rek moo tax ma ne woon garas tubaa rek. waaye loolu moo la dal sëriñ Abbas sëriñ Abbas ni mu toppee woon ay magam xat na waaye mu ne su ko ñàkk bañ a wax diirub sëriñ Modou Abal ak sëriñ Abdou Khoudous ak sëriñ Cheikh Khadi sëriñ Abbas mu ngi toog doon doomi maam Thierno rek doonu taalibe di leen déglu guddi di leen déglu bëccëg wax nañ ni ñeent fukki kilomètre la maam Thierno gor waaye sëriñ Abbas amu cib tool ndax lan da ngay jéggi ñetti région Kaffrine jurbel Koungheul dem ba Koupantou mu fay tool balay sa li mun a ñàkk kon bi ñu limee délégation yooyu ñu jéggal ma ndax yëf yi dafa xat waaye xam ngeen ni réew mi munta dem ca bàyyi kilifa yi diine yi ak aada yi moo tax le président de la république yaru lool am jom lool bëgg réew mi lool fu diine nekk mu nekk fa diggante diine diggante diine ñi ngi moo tax mu yebal fii bàyyi bàyyi rek jërëjëf mu yebal si le ministre Aly Ngouille Ndiaye nga xamante ni mooy yor industrie ak miin mu yebal si Omar Gueye mi nga xamante ni moo yore pêche mu yebal si Abdou Ndéné Ndiaye sëkk sëñ bi ah, jeex na ah comme li na ko kon ñu jox sëriñ xaadim mi nga xamante ni moo war a wax moo njëkk jël kàddu jox sëriñ bas ñu jox sëriñ xaadim Baye Samb di géwél bi dëkk ci Daaru Muxti kon su ko defee ñu ngi koy sant baax a baax di ko gërëm ba tey ñu ngi wéyal programme bi rek jox kàddu gi ki nga xamante ne mooy Serigne Khadim euh, Serigne euh, mel ni Serigne Cheikh Bara Laat Serigne Cheikh Bara Laat la ñuy jox kàddu gi su ko defee incha allah mooy wax ci suru euh, xalifa général des Mourides Serigne Sidi Mokhtar su ko defee ñu bokk teewlu kàddu yi bàyyeekoo ci Serigne Cheikh Bara Laat ngeen di ko déglu en direct ci rajo RTS nationale 95 point 7 mu lëkkaloog RTS Touba Mbacke FM